cher pour un produit yu bax yi fajum ciosan ak di defar produit yu bax ci ay plantes 100% bio yu mi gor wala jigen nga am fever bu la jaxal lol c'est il cher mo ci ay nga amé ay tank yu metti ndoxum city ken mënu ko ci wala nga amé hémorroïde cher mo ci gaaw prostate jooni jooni la koy faj nga bëgg am jëkkër wala jabar nga am biir bu rëy produit Cheikh da koy dindi nga nekk jigéen bëgg forme Cheikh daf lay defar ba nga doon jongoma foo romb ñu xoolaat la yokk awra kattan ventre plat mauvaise haleine biir buy métti bopp buy métti resserré vagin ubbeeku wala bayre ku la gis sopp la drépano karaw Chat, chat buy métti ci 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94 wala Instagram Cher Produit l'officiel. vacances su Ñankula kër Yoro. vacances su Ñankula kër Yoro. Yoro lu mu doon si Ñanku. nijaayu Ñankula. hey satu bi ay. nekkaale Yoro la. xoolal góor gi ci kër gi jaaxal nañu. góor gi ci kër gi jaamal nañu. bu jëfee da ngay tii. waxee da ngay tii. kooku mu. asu asu la boo. li waral coow li léegi mu mat xaar ko du woo ko moo naa kay naa ko wuyu loolu salaamaaleykum salaam yéen a ngi si jàmm nee na ak coow xaa xaamul photo xaa xaamul photo loo koy sant bu baax alhamdulilah alma sa pusa ne kël mooy toog ci digg kël wax bi nag jarul muy gudd Assane fekk naa la sa néeg ma wax la entre homme homme yooyu yëpp yor na lijjanti waxal rek waaw damay waaw mu ñëw naa sa néeg wax ak yow entre góor ak góor du dégg bi ma waxee ak yow entre góor ak góor ci degré ngóore yaa ngi dégg wax la ba ñëw si yow wax la li ma lay wax billaay bu laalaatee sa kol bi dinaa la dugal ko yàlla mi ñu tiim na ko bu laalaatee sa kol ma dugal la ko boo dul jot góose lu ma la waxati lu doomu pël raxasoo ma jël ko lenkali ko naan ko def ko njar yaa ngi dégg garaaw eh, feeb waxuloowu ma da feeb laaju ñu fii xalaatu ku kon xalaatu nit njaay lañu laaj kii nag maa ko jëlee woon Casamance man nga luwee woon dose sàmbar yi yaa ngi dégg responsable kër bi xaaju kër gi yëpp man nga ko loué te boo léegi may fay léegi nag seede masata dina génn kan mooy génn day génn kër gi ndax man maa doon fay néeg bi fayatu ma ko te tamit même bu fekkee ni tamit leneen da ci am foog ma génne ko ba mu génn bu ñëwaat tamit nga xam nekkul sama responsable si la ñëw wax nag bu feebaree nopp yi si déglu nañu nekk nopp yu wér jërëjëf waa kay voilà léegi nag man saa nopp yi daa wér voilà dégg naa li nga wax réew baaxul kan mag bu réew mag bu réew mag bu réew a réew a réew déglu rek danga déglu ma déglu eh, eh, dangaa réew déet danga may déglu ndax dama laa déglu waaw yore dama laa déglu écoute laa la may waaw waaw mag bu déglu ma rek. ma rek ba mu àggal. yow yow est-ce que wax naa fi léegi yow yaa ma moom. waaw léegi yow yaa ma moom yaa. waaw bu wax leew na xam nga lan la. mag bu réew mi fan la jëm waaw da nga may déglu ma wax la. waaw dégg nga yow amoo kër. waaw amoo a jaay man mi nga xam ne ah, moom ay kër yow nag dama laa loose bu la neexee bu la neexee nga boo resewul nga nokk saqat génn tëbër ku tëbër kuraa pour kii ala bëre fois la quatre cent fois laa wax da nga ne kii mu génn satu bi yaay waaw mais waaw kii waaw du génn xamala la xamal eh, mani mani da ngaa bëggoon a kii génn yàq yàq azul mani yàq aduna bo yep la bu ngeen di yalla ma sama ciabi dal di dool rentre la sama salama hey may ma na ndongale am ci atta baña ag ci baye at waaw kay ma ngeen du sama ñok dama la bëgg xamal ni dama signé contrat ak yow chaque mois avant la 5 ma fay la bu gëna de am yow mi borom ko ya gëna ci xat ewa ci yoon mo fi dëj dëggoma de contrat la signé yalla yalla yalla samay caabi caabi ngeen ma ma sama kër gi laa wax. wala wala saa soo sa dëgg sa fulla fay da nga dugg. déglu ñu ne kii mbaam gàtt waa ci jur gi la bokk. waaw daanaka yaa am dëgg kii yaa ko indi fii dëggam de moo fi indi ci ñàkk ak ci talaanga. waaw waxtaan waxtaan la rek. xëy na da nga doon génn amut yaa dégg yaa kii nga génn na la kii takk. coow lu jàpp yaa def ngeen def seen moom def néegam ma nga laal ma paat la ma sama fa sama kanam mais même sama ko takkul sax kii daa demul ndax damay wettale moom laa dégg kër gi man kii demul yéen yéenay dem yéen yéenay dem sa wax yow waaw man ñaalamaa nag da nga leen rek dama nag ma jàpp samay bakaat gën dem waaw man loolu laa bëgg sax nga jël amuloo fi benn bagage pancarte nga indi woon pancarte lan. pancarte yi ba fi ma ko teg sori. waaw teewaatal sa pancarte. Eh. sa yoon a ngi nii. ah da nga mas. yow nag mas boo ci delluwaatee. table yi nag boo ci te day génn kër gi. génn kër gi te boo saaga waatee ma nokkul. calme eh boo ma waxaatee da ngaa réew ma. di nga moon di nga moon nga laaw di nga moon nga. boo ma waxaatee da ngaa réew ma nokkul. man samay caabi laa boo yëpp génn leen taxat. man man nan lay xaar sama nekk ba nga fekk ma ah maa ngi xaar man sama nekk. jóge coow lii nag moom sama yoon new sama ngañña newu ci. waaye man boobu ci tuddee. maa ngi lay xaar. maa la waaw waaw waaw waaw waaw ñu du la génn sama kër léegi waaw léegi xanaa léegi amatuma titre foncier wala amatuma titre foncier waaw xanaa lii di sama titre foncier génn sama titre foncier sama kama gën. kan mooy génn yow. génneel yow. man. kama a

yo yo yo ma dama wa yaay waay wa yaay waay wala ma sama yaay waay gennal gennal bu ma la mbaatee bo dama la sol dama am problème gennal yow gennal gennal kër gi kama kama ci ñëf na kama mo dool ñëf jeena ko kama yow daa mel ne ngay sot gennal do ale bi maa ngi ñëwaat te du kama do ale bi maa ngi ñëwaat ñëf gennal sama tété kama do ale bi yàlla wala moom maa la nokk soxna Talla nga yàq li boo xam ne buul Sane mën na la buul Talla. eh man eh xeexuma la. xeex sama sama ci jàmbaar la jële jële. def par sa kon génn kër gi. tey ngeen dee tey ngeen dee nangoo ñu ñëw bu ñëwee day tojol yoro bu